lu war ngi filmé ah. na. wala comme ñëw nañ fii nañ continuer bu ñu demee ba fële nga amaale ndox. la amaale ndox ok d' accord. gis ngeen amaale ndox yële. gis ngeen ngay pause rek. gis ngeen màggal Touba de ay ay fan yu néew si des mais gis ngeen à moins de quarante cinq jours du grand màggal. ab taw dong la def voie bi këtt na këcc dematul fenn la dematul taxaw voilà. waaw léegi voie de droite bii doon jëm tuubaa tey askan wi daan ko jël ak ak véhicules yi les automobilistes léegi kenn mënu kaa jël ndax lu nekk fee mooy ab déeg moo fa nekk déeg bi nag moo jàkkaarloo li nga xam ne mooy maire bi yi nga xam ne mooy maire Touba bi ñu dégg Abdou Lahad Ka waaw gis ngeen ko yéen a ko seede nii lii nag mooy loo xam ne moom. yàlla na yàlla def si màggalu sutura màggalu borom Tuubaa gi ba taw nag ñëpp a bëgg waaye ba waxtu woo nag yàlla yàlla may ñu rek boo xam ne ndox mi du demee gis ngeen ndox ma nële gis ngeen ko ndox mën la oto yëpp yi daw parce que fee dafa xóot gis ngeen oto yi ni ni nii ni ni jaaree point bi te waroon na jubal ne la jëm Touba gis ngeen ko ne la loolu nag moo amul lii nag am mairie buñ dëkk dëkkub dëkk nga naan nga budget 4 milliards 4 yooyu deful aussi dara loo xam ne dafay jëm ci prévention inondation yi ndax gis ngeen de li Touba gis ngeen gis ngeen li gis ngeen ko ni li li c'est impensable dans une ville bo xam ñu naan 1 million d'habitants plus de cent mille véhicules qui circulent chaque jour waxatuma oto atay dëkk si dëkk bi rek mais ñi nga xam ne ñoo jóge si yeneen gox yi di ñëw fi rek kenn mësu ga gis gis ngeen de oto yépp waroon a jaar fee mais mënuñu faa jaar li ko waral mooy lii lii lii ngeen gis gis ngeen mairie bi ne li mooy mairie bi jàkkaarloog mairie bi waaw gis ngeen ko ni de mairie bi de la Abdou Lahad Ka di ndox mi moo nekk nii jàkkaarloog moom ba mairie bi nekk ba léegi ndox mi di fi taa kenn amul xam-xam boo xam ne maanaam mën nañu fay jëlee ndox mii rek te am budget quatre milliards trois milliards cinq cent yéen a ko seede léegi nag oto yi moom duñ fa jaar nee na duñ fa jaar ndax dafa xóot day yàq seen wat légui nak benn voie bi nga xam mo moo waroon Touba li Abdoul Mouridine di jëm Mbacké ci la auto yépp di jaar di ñëw yéen ko gisandoo ni mom li la laa ni filmé li dañ koy filmé rek yaq ñu de defuñu dara mais dañuy def témoignage rek pour soñ ñi nga xam ñom la Yalla nattu ñu dénk dëkk parce que li am natt la Yalla bu la dañ koy dëkk bu mel Touba man ak dëkk bu la dëkk rek jàpp na am natt bay gis ngeen maire bi ni gis ngeen maire bi ni yéen ko gis gis ngeen ko ni li may maire bi Touba li nak mom ñoko sét ndax mi dess na dé est ce dañuy dem compté leen di leen chiffre rek est ce dañuy dem. léegi nag si li ma leen wax gis ngeen oto yi léegi contourné nañ foofu fa ndox ma jaaroon léegi nag fii dañuy jëlaat seen voie normale gis ngeen nii ñoo ngi di jàdd di jëlaat voie normale bi voie bi nga xam ne moom la jël te ndox mee daal koy def nii léegi est ñuy dem sa kanam tuuti fële si station Shell lu mel ñu bàyyi sa ginnaaw moo fa des waaw ni la tali bi mel. ñiy jël seen voie de droite jëm Touba ñee jël seen voie de gauche di jóge Touba di ñibbisi waaye loolu mënta nekk ndax li ko waral mooy taataa ndox yi asle ñu dem ñu ñu ñëw naa leen beneen taataa boo xam ne tax na lii ñu dund léegi ñu dundat ko voilà li ma doon wax xam nga wax naa leen léegi ne leen ne asle leen ñuy dox ba si kanam maanaam à moins de un kilomètre cinq cent rek moins de deux pour être plus sûr si boor yi près su préfecture Ndam bi gis ngeen oto yi ni ñu rangee nii gis leen nii gis ngeen leen nii si autoroute bi bi jëm Touba jumaa ja direct oto yëpp dañuy jàdd kenn du continuer xam ngeen lu waral lool ndox mi te fee fii ñu jëm ni moo gën a xóot fa la ñu romb waaw si oto laa nekk nii di filmer mais gis ngeen fee ñu jëm ne moo gën a xóot fois fa la ñu romb Euh, xool xool leen rek suivre leen ñu rek da ngeen gis li ma leen wax lépp di ngeen oti yëpp yëpp yëpp xam nga lii du màggal Touba màggalu sëñ bi Xaadir la gars yi di ñi ñuy ziar ak ñi fi dëkk di liggéey ak ñenn ñiy dox seen i morada waaye gis ngeen lii bu màggal Touba dikkee tey mu fent rek mu taw ni askan wi def nan la njabootu Seexul Xaadim gi def nan la julliti suñu borom yi di màggal si ni def lu gën a garaaw li mooy am lu gën a garaaw mooy maanaam embouteillage boo xam ne kenn du dem kenn du dikk gouverneur nag nee na moom du nangu mukk ab tali bu ne këtt kenn du ko kenn du dem mais nee daal moom tali tali du dagg nee na dana fexe benn tali moom du devient devenir impraticable fu ndox am danañ fexe ba oto yi jaar fa moom di dem ba ndox moom yoon woo du fàtt baax na yàlla na yàlla def rek bu bu raab du taw du def ni mu def taw mag mu taw fii si guddi gi on verra ce que ça va faire si CRD bi si jëm màggal gi la ko wax krok wa gis ngeen auto yi ni bloqué ni auto yi ni bloqué ni kan mën ta dem xam ndox bi li gëna grave sax ci buntu sous préfecture bi la nek gis ngeen ci buntu sous préfecture bi la nek wa sous préfet du ma ko ŋàññi parce que acte li jëm ci walu ndox yeek nek na skin wek yoy mom coordinateur représentant de l'état de l'administration sénégalaise waye nak ndox mi nek ci buntu kërëm gi

dafa jël essence di dëpp sa station essence station essence bi gis ngeen oto yi trois voies lañ ko def camion oto bu ndaw oto bu mag ak sareet ak lépp lépp lépp lépp rek gis ngeen ko gis ngeen camion ba léegi moom dana man a dem parce que wóolu na autoru otom wóolu na oto bu otom mais oto yi daw yëpp ak oto transport urbain yi nekk si Touba ñëpp dañuy génn gis ngeen kële moom dafa dëppaat da doon jël gasoil di ñëwaat gis ngeen ko leen lii rek xool leen ñun ñoo ngi nii di jàdd parce que mënuñoo dem waaw ñun mënuñoo dem dañuy dëpp ñoo ngi nii dëpp di jëm ne la di jëlaat voie bi nga xam ne mooy retour tubaab yi nga xam ne ñi jóge Touba fa la waroon a jaar waaw gis ngeen gis ngeen nii gis ngeen yéen a gis gis ngeen xale yi jaay crème glace ak ñoom ñëpp kenn mënut a jàll kenn mënut a gis ngeen des arrêts intempestifs yoo xam ne kenn mënu kaa xam comprendre waaw li daal mooy mooy mooy mooy mooy situation bi loon bëggoon a dundal nañ dem ba sa ndox ma tuuti moo leen ndox mi su ko defee ñu arrêté live bii nekk si yoon yëpp dañ ko def rek pour soññ autorité yi ñu leen yaa di travail ki attend liggéey bu wér wér wér wér moo leen di xaar maire yi beeg état ak tout le monde waaye man maire bi lay gën a responsabilité parce que mënu ma nekk dëkk yor ko ñetti at ñeenti at gis at mu nekk loo xam ne mooy indi jafe-jafe ya jëm sa am benn mesure boo xam ne damay jëm a drainer les pouvoirs publics ñu jëm a saafara loolu ak kilifa di ne ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk yor dëkk bi loolu man loolu loolu donc moo moo si moo si jara ñaaw gis ngeen ñi mbàkke leen jëm wala dañuy jéggi gis ngeen ndox mi voilà gis ngeen ab déeg comme un fleuve mi ngi nii essence essence bi gis ngeen da kaa impacté négativement économiquement gis ngeen ndox maa ngi dafa xóot nag moo gën a xóot bu njëkk ba léeg lépp ndox la loolu lépp ndox la gis ngeen ko